lan bikum campagne bi dagaan baatu askan wi ngir jongante njiitim réew mi fañ koo tàmbali niki démb ci réewum Sénégal candidat yépp fa ñoo wane seen bopp ñii ci joxe seeni programme ña ca des fa ñoo xamal karawaan ñeneen ña def mobilisation mitim ña ca des dugg ci kër yi askan wi ngir ñu wotal leen si du quotidien moo ñu ko xamal ca geneen wàll ga candidat yi tamit yëkkati na ne seeni kàddu ca RTS ngir dagaan baatu askan wi waaye fa ñoo seetlu Bassirou Diomaye Faye candidat moom ay kàddoom jàllu RTS donte ay farandooram enregistré nañ ba pare waaye sénéra fa ko bloqué ne Diomaye fay rek candidat bi moo am sañ-sañu wax RTS wal fajiri télé na ko Diomaye xebalal say ndaw ñu ñëw fii ñu may leen antenne ngeen wax ak askan wi li leen RTS xañ ñun fañ leen koy jox wal fajiri yéen a kaay moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay ne campagne bi kay fa hubbi fi mu toll nii waaye gaañi fa ñoo tàmbali di attaqué wante kenn may sa morom dara le quotidien campagne bi kay fa tàmbali ak fitna jàppante diggante APR ak farandooru Diomaye ya ca Parcelles Assainies bés kaay na fitnde saboté campagne bi fi mu toll nii fa tàmbali yaaw seetal bu taxatu nag gendarmerie nationale ndaje ma nga xam ne moom la Amadou Ba oote woon ca daluwaayu APR ba konoon làmbaay fa fay ñaaw ña ñuy wax farandooru APR ca seen biir ñoo doon rayante ak jàppante ñii naan fay ñu suñ salaire ñu yoral ak ñii naan ñii dañ leen a yónni fa xam ñoo xam ne biir APR lañ nekk ay responsable ñoo bëgg a saboté Amadou Ba yàqal ko ñu ne déetawaay caravane Khalifa Sall fañ leen a songu fa naka noonu tamit jàppante am na diggante militant benn bokk yaakaar ak yu jomaay ya ginnaaw jàppante yooyu tamit candidat yi seen faiblesse ak seen programme yi nga xam ne fa desee mat nga xam ne ci ñoo xam ne seen programme yi fañ koo tënku ci ay lim maanaam chiffré wuñ ko lii yéen kaay na fukki candidat yi ak juróom-ñeent kay démarré nañ seen campagne Amadou Ba moom fa wax ne noppi na ngir gouverner Déthié Fall Aliou Mamadou Dia bu PUR ñoom fañ doon ngoro ndaw ñi neexal leen ngir ñu wotal leen Khalifa Sall fa xoo askan ñu tànn choix bi gën te mooy moom Diomaye Faye Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye ñoom fañ doon défendre seen projet bi Thierno Alassane Sall Boubacar Camara Anta Babacar Ngom Daouda Ndiaye Fall ñoom ñëpp fa ñuy xootee ab changement bu ñu leen falee ñu jiite réew mi réew mi yéen a ne jamono ji kay candidat yi fa ñuy digg rek su ngeen ma falee faa leen di defal lii faa leen di defal laa lépp ngir bëgg ku leen fal info yéen a ne waaye coalition jomaay président yéet démb mitin bañ amal ca terrain akapes fa fees del ba rembat bay tuuru mbooloo moo xam ne kenn mësu koo gis foo sànni mbattu fay tak nit ñu ñuul kuk te lu ko jiitu fa ñoo xamal karawaan biir ndakaaru ak mbooloo mu bari moo xam ne fa jéggi dayo enquête yéen a li ñuy wax démonstration de Pastef kay démb fa wàccee terrain akapes ak ndakaaru fa fees ba tuur yor yor yéen a kaay ne mbooloo ma foo ko natt weesu na ko patriotes yi fa ñoo rajaxe démb ndakaaru la ñu wane démb ca mbooloo gisuñ benn candidat bu wane démb suñu waxantee dëgg les si ko a kaay ne laneen luy dëgg mooy APR seen responsable ya fa ñoo wan ginnaaw Amadou Ba fañ koo seetaan ah, yaaw seetal responsable APR yi moo xam ndakaaru njaay moo xam diiwaan yi ci Sénégal yëpp démb ñoom ñëpp fa seeni loxo mitinuñ karawaanuñ pour Amadou Ba diiwaanu Kaffrine moom seen comité électoral ba fañ ko mujj kaay ne li ma gis démb kay moo tax fay laajte dëgg-dëgg ndax Amadou Ba waa APR yi fañ koo ba nekkatu seen candidat a ah, yaaw seetal bi muy ubbi campagne bi fa faxoo mbooleem ay naatangoom ministre ya nekk ca APR ngir ñu ñëw fekkee si ko waaye ñoom ñëpp fa ñoo bañ kenn demut maintenant ministre bi ñuy wax Pape Malick moo fa demoon li gën a garaaw Farba Ngom mi nga xam ne moo yor wàllu mobilisation ca APR demut naka noonu waa COJER yi ak maire demuñ fa ñoo lànk alliés jàppale APR nekk ca benn bokk yaakaar fa ñoo bañ demuñu kenn daal lañ fa gis mooy Aminata Mbengue Ndiaye PS Moustapha Niass sax demut fa seetaan Amadou Ba Samba Sy mooy ministre bi fi Macky dàq bërki Dembo Ndiaye moom demoon na ñaari DG ñoo fekkee ndaje ma muy bu LONASE ak IPRES ñi des yëpp fa ñoo wan ginnaaw Amadou Ba ñu ne déetawaayet yi meeting bi nga xam ne moom lañ bëggoon amal ca Mbàkke fañ ko mujj neenal bàyyi ndax responsable fa ñoo ragal dalal Amadou Ba njiitëram Macky Sall rëq seen digg mujj gi Amadou Ba ak estafam ba ñoo mujj aw seen matériel yi leen war a jox ngir ñu campagne ko xaalis boobu ba léegi joxuñ ko Amadou Ba responsable ci commune yi ak diiwaan yi jotuñ dara Zahra Iyane Thiam ne su fekkente ne Amadou Ba nekkatut candidat wu APR benn bokk yaakaar wala fekkee fa ñoo xam beneen candidat nañ ko wax moo gën jëf ju ñaaw ji ñuy def ma ngi ko ñaawloo ca point actu yéen a kaay bi ne ko Moustapha Niasse sax ñëwut de fa leen seetaan enquête yéen ne ki ñëw nag génn programme am mooy Anta Babacar Ngom waaye bëgg-bëggam mooy politiciens yu màgget yi nii mu yóbbu leen à la leen di pousse ñu dem noppalu ji man ca wal fajir yéen a kaay le mandat yéen a kaay ne pourtant Benno Bokk Yaakaar fa mel ni daal boole nañ seen doole ja te Amadou Ba mooy favori ngir gagné élection yi waaye ak ti kaay mel ni ku daan ko waaye yow li nga wax noonu moom foo ko teg yow Amadou Ba Sénégal yëpp gis ne APR fañ koo néewal doole kenn yi nga xam a débat waaye man fay laajte su fekkee PDS Karim Wade kalaame nañ fa les cours suprême annulé décret ba nag su boobaa lan la ñuy wax xanaa tàmbaliwaat yëf yi à woote ñàkk am 24 mars la am nag ba noppi mooy ne Sidiki Kaba fi mu toll nii jébbal nañ ko lenga ya njiitu jëwriñ ne tàmbali na liggéeyam Le Soleil yéen kaay ñu ko xamal libération moom fa ñoo xamal coow la am ca jëwriñ ju ñu dénk wàllu formation professionnelle ci neenal boo xam ne fañ ko faa neenal ab marché boo xam ne toll na ci fukki milliards ak benn yéen kaay bi jàppee ko flagrant la mu leeral moom l'observateur ba wax ko mooy fa xam benn bus tata boo xam ne ay bandi fañ leen a attaqué agressé leen ba pare fa ñoo daal di rey chauffeur ba doon dawal oto ba bis ba fañ koo bojji paaka mu dee yëf yaa nga amee ca VDN 3 ba tey l'observateur fa xamal mbir mu yéeme te garaaw yaaw seetal fa xam benn waay daal fa tuumal baayam bi ko jur ne baayam fay kalangaatu ci ay soxna yoo xam ne fa ñoo xam jëkkër maanaam fa leen di nob di leen topp ngir xànd ak ñoom ak a caaxaan loolu nag moo naqari doom ju góor ja ba mu jéemoon a rey baayam waaye baay ja fa rëcc yaa nga amee ca dëkk bu ñuy wax njéemaan laas yéene moom fa xamal Sénégal ne Sénégal defati na mëninam maanaam weeru koor woo xam ne fañ koo tàmbali ci anam gu wuute ndax tey ji ci altine ji am na sénégalais yoo xam ne fañoo ñoo tàmbali tey weeru koor yi waaye ñi des nag suba ci talaata ji la ñuy tàmbali hum koor hmm, waa ma ne ñi tàmbali tey ak ñi tàmbali suba gannaaw subaa ci yem yonent bi nee na wuute xeetam bi yërmande la li am solo rek mooy ñaan liñ ci jaamu yàlla nangu ko te jéggal ñu suñuy bàkkaar man nag faa leen di baalu